Bye. uh, يا رحمة العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رضي الله عن صاحب الختمية والكتمية مفيد الأولياء والأخطار سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله xam naa kàddu yi ndax kàddu yi tamit lu mën a ñàkk la kenn ku ci nekk ñun ñoo war a toog sa wet for ci say jàngale ak say xam-xam rawatina nag kii nekk ci sama ndey joor di sëriñ Babacar Ndiéguène Ibnul Xaaji Mouhamad Muniiru Ibnul Xaaji Mouhamad ñun ñoo fa nekk ñu wuutu ko moom it ñu wuutu ñu fii dañu ñëw rek ngir jàppale si ko ngir jël si ko tabaarakallahu li muy wax dafa baax rek bari yërmande waaye fu mu toog toogaay alxaali mu na ko toogee mën na faa yëkkati kàddu bu wér te lu mu wax tamit day gaw waaye ñun ñi ko xam ñëpp ci modeste lañ ko xamee ak woyof ba ku yàlla dimbaliwul sax mën nga gaari ci moom mën naa laa wax ne la bi Dakar mbay ba Kirène moom ñii doon doon waxtaan ñi may àndal ñëpp samay nawle lañu samay jarbaar lañu samay mbokk lañu Dakar bay ba Kirène moom ñii la doon ndax day kilifa goo xamante ni euh, xol bi baax na baax boo xamante ni. soo jëflanteeg moom te xamoo ni ngay def rek di nga tuub ndax moom ni mu mel noonu la jàppee ñëpp macha allahu taala soo juumee tamit rek soo ko xoolee ci ay façon ay waxam kafam léeg-léeg sax waxtaanam da nga réer ndax dina ci boole xorom soo xamante ni yow bu dee jamono rek ngay xool loolu ngay topp. fekk juub na fa xam-xam boo xamanteni du jeex waaye nit ñi kullu xisbin bi maa la day farixoon am na ñoo xamante ni la mu la mu laal tey yàlla kese moo leen intéressé la ci des yëpp loolu duñ ko sax déglu ñun nag yàlla boole nañu ci ñoom macha allah wax naa ni am na xam-xam mais su amuloon xam-xam tamit dina am barke am na xam-xam. waaye su amuloon xam-xam tamit day am barke keneen ku mu dajeel tamit bala ngaa dem di wax lu leer ndax dafa yàgg sonn ci xam-xam da ko yàgg bëgg daj ci lu nekk ba sëriñum gërëm ko ñaanal fu mu mus dem daara ju mu mus dem rek sëriñum gërëm ndax su demee du yóbbaale mbubbum njëge neen déedéet suy jub dëkk ba la summi nekk taalibe wàcc ma jaaxal ñëpp te loolu moom mooy euh, da bu góor yàlla yi yàlla ñu yàlla fayal yàlla seede na ni man awma dara lu may wax moom du may ci turu alaaji mu nuyu damay wax ne jëmmam jii toog doy na représenté alaaji mu nuyu mooy la ma wax sant ca kanamu imaam alaaji ahmad baro jógee ne waa de day tagg Cheikhu Tidiane di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba ci yàgg mu ne woy wi daal xotti naa woy wi benn daggit du satr bi sax laay jël waaye benn daggit rek laa leen di wàccal ñu ne ko lan la mu ne wal xaalu shaahidu mu ne wal xaalu shaahidu mu ne demal rek in zurtahu laka yabdu ma qultuhu bil ayaani ya mimdari at tijaani hunaka tuxta al amaani in si in shita saddiq wa illa fa mut fa mut jàngee jeex waaw nee na waaja lii alaajab doo ko wax waaye waa waaja moo waxoon ne wal xaalu shaabidu te waxam jooju tamit ci la waxee woon ne laqad qaala baadu alqawmi anniya muznibun mu ne yëgal leen ñoom ne leen fa zalika zanbu lastu minhu bi taibi mun leen yéen ñëpp dégg naa borom xam-xam yi di dajaloo di def ay fatwa naan kii daa bëgg Cheikhu Tidiane ba amul ci moom sago ba bay def li ñuy wax xulu ci ñoom ne dafa ëppal ci mbëggeel gi mu ne dem dem nañ sax ba ne mbëggeel gi ak jàpp gi mu jàpp Cheikh bàkkaar la ndax shirk la ndax xaw ma lan la ndax xaw ma la mun leen boobu bàkkaar de moom du ci tuub te maa ngi ñaan yàlla bis bu nekk yàlla di ma dolli ci bàkkaar boobu mooy bàkkaaru bëgg Cheikh na Ahmad Tijani waqad laqad qaala baadu lqawmi anni muznibun fa zalika danbu lastu minhu bi taaibi yàlla nañu yàlla fayal moo tax ma ne moom it wal xaalu shaahid ñëw gi mu ñëw ñëwu njëgëneen yëpp la ñëw gi mu ñëw ñëw mu Muniru la ñëw gi mu ñëw ñëw alaaji Abdul Aziz la ñëw gi mu ñëw ñëw imaam alaaji Ahmad Baro la ci jikko ji ci yar bi ci teggin bi ci yaatal bi ci wóllëre bu dëgër gi mu séq ak yaxyaa mi waaye séq googu yaxyaa maam alaaji moo ko séq ak waa xiniin moo ko séq waa kiréen moo ko séq képp koo xamante ni yaa ngi dox ci diggante kër yu tedd yooyu ñun jàppee ñu leen taalibe de déedéet leen jàppee woon taalibe lii du am suñ leen jàppee woon taalibe duñ dégg rek doomu sëñ Muniru nga ca ñu yóbbu njaboot ga ca ñu dégg ne moo nga fa ñu jël njaboot ga yóbbu fa ay nawle lañu ci yàlla yuy ànd ngir jëm yàlla di soppante ngir yàlla di bëggante ngir yàlla di ziyaarante ngir yàlla ngir su ëllëgee ñu dëkk ci kër yàlla mooy aljanna yàlla ñu ko kii tamit neex a àndal ndax seen mbay mii wax naa leen ko léegi ku ku ku doy waar la li ngay gis nii waaw ku jëflanteeg moom nenn ni rek am nga lu nekk ci yow lu baax waaw ndax nit ku entier la li nekk ci moom rek lay wane ni mu toll rek fi ni du yëgoon leneen fi ne da koy def léegi moom noonu la ko yàlla bindee ndax sincérité bi nekk ci xolam Yaxya ànd ak sëñ bi ànd bu rafet waaye ba mu ànd rek moom tamit musu ko cof sëriñ rek la ko mos a def di ko xormaal jox ko cër lu muy def waxtaan ceeg moom ànd ak moom ci ànd bu rafet ba tabaarakallaahu sëriñ mu niiru bég ci loolu ba mu ànd ak moom ba mu sukk ci kanamam mu jël ko jox ko wéru salaatu faatiha loolu di mu rëy moo tax tamit ah ma xam ni yaxyaa ñii mooy sëñ mbay loolu muy dund noonu sëñ mbay mii moogu moom waaye sëñ mbay xam naa ne toogagul te kii moo ngi ca daara ja mhm. cër bi moom moo ko moom waaye xam naa ne ku defal Yaxya Mbay nga ko def nga defal waaye ku ko def tamit moom nga def loolu rek la kon nag yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar ñun kontaan nañ bu baax ndax seen kóol ak seen dëggu ak seen pas-pas bërki démb rek am na mbooloo bu mu fa ñëw maa ngi leen koy wax man leen euh, ñun waaw waaw dem naa ba jërëjëf naa ba ci kër ga ziar man da ma wax ñooñu ne ñun ñun dañuy nekk sëriñ ba keroog ñu dee yéen yéen ñi nekk fii yéen ñëpp soo la ñu bàyyi woon tamit dañuy nekk sëriñ njëgënee dañuy nekk sëriñ ba keroog ñu dee xam nga lu tax suñuy taalibe séeréer ci ëpp te séréer du wopp góoru séeréer ga seen ziar bu mag boobu ñu defaroon alaaj Mouhamed Ndieguène ci mujj dundal loolu la ko wax ne ko ñun ciment la ñu benn yoon lañuy ñuy tooy mu ne ko njëgeen ñun si ñeen lañu ceelu duñu këf te te kenn duñu rëkk oh kon nag suñu xel dal na yàlla bu yàlla tas yaakaar yi yal na yàlla barkeel yal na yàlla dolli jàmm nuyu nañ bàyyi Aïssa yóbbu nañu ca xalifa ba tabaarakallaahu yàlla dimbali nañu ba sëñ Assane dem nañ ba ca daara ja fekk ko fa ziar ko ngir jëm yàlla ndax xam na ni euh, moom it toogaay yu mag ñi rek la toog alxuraan rek la bëgg xam-xam rek la bëgg daanaka timis bi jot na tabaarakallaah dañuy yemale foofu suñuy kàddu wan leen suñu mbégte ak suñu euh, kontante di leen wax na leen ànd nañoo euh, suñu rak Abdoul Aziz Ndiéguène muy rak sëñ Mbaye ñoo bokk léegi bàyyi suñu jarbaat ma jóg jàpp ànd ak sëñ Ousmane Seck moom moom séeréer la waa Kirène la moom it tabaarakallaah ak suñu jarbaat sëñ Daawaay Guèye moo ñu indi ci oto yal na yàlla fay na yiw barke alxuraan kon ñu jox euh, al oustaz ak ñu jël seen mu sànni waaw mooy anam yëpp ñëw na ñu bu déggee fii rek bàyyi lépp lu ñëw waaw bisimilah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على لنعمة هذا الرب العظيم الذي يا جاءنا من الخليفة المقدس السيد منير الجيجل والصلاة والسلام على رسول الله Government will no go to Canada. Yeah. Ndax yéen moom rek la ñu leen di xoolee ndax ñu ngeen ñëwee ak tamit seen taxawaay ni mu ko mën a représenté kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di kontaan ci seen ak yow yaa yaa mu di ñëwoon moom jar na li di na lu ko ëpp jar na lu ko ëpp gën a taala yàlla na tànkay mel ni bari fi lépp

Thank you. jàpp ñëw fi loolu moom tuuti yàlla mbégte bu rëy lay fenn lay fenn ndax sa kilifa di nga yaakaar ci lépp yàlla moom bu wàll te ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ñaanal di leen xamal seen tànk yi tànk yu ndax tànki bokk la tànki jëriñ ak daal benn la kon tànk yooyu tànk am solo la te xeet ñu ko mukk ci ak diir daal ngeen fi ne rek suñu jotaay mat na fekk dara man kon loolu lu am solo la may wax ne yàq yaa jiw bésam